suñ healthcare system uh, of this nation xam nga dafa nekka loo xamante ne uh, dafa doy waaru definitely waaye uh, kër gi foundation ñoom seen seen taxawaay bi loo dafa important ñu ngi dégg pa boobu noonu xam nga mu ngi doon explain some of the challenges ñi nga xamante ne comme nit ñi suñ demee si lopitaan yi xam nga lu face foofu noonu because xam nga maa ngi ko dégg xam mu wax about xam donation of blood xam ak all those things loolu yëpp xam nga mu nekk challenge bo xamante like um, foog na ne comme xam nga nga dem lopitaan xam nga nga am sa patient loolu rek xam nga stress yi la understand nga wala comme hanga nga nga dem lopitaan hanga nga amuloo dara sa patient bi is in a very critical situation Hanga and you are struggling yaa ngay xalaat naka ngay amee xaalis nga pour faj kooku noonu so xam nga ñii daal xam nga lu gaa yi def dafa important up to an extent ne comme xam nga like everybody dafa war a try comme xam nga ñu roy xam nga comme xam nga si gaa yi if I can do something to help the sick people if I can do something to help the hospitals or the um, the health centers dama ko war a def yow danga ko war a def keneen daf ko war a def. there then the problem will be na who feels même woyul la. Uh-huh. meew nag bu nekkutugul soow lu ne xej na ci. Uh-huh. te toujours nit da war sóoraale. Uh-huh. nañ koo laax. ne. nit moom ak oto yooyu yem. mun ngaa paan anytime. mun ngaa paan anytime. te balaa ngaa paan nag da war a def ba nga xam ne say gaasuel li nga war a paan. am nga ko. sa ndox am nga ko. sa huile am nga ko. bu ko defee boo demee nga fi tema. liggéey bi day teel a gaaw. day yomb ndaxte tey jii nit ñi dañ war a focus ci ni dañ gën leen seen tataay ñuy may deret. ñuy may deret ndaxte sometimes léeg-léeg nga dem ñu opéré sa jabar. mu ñàkk deret. ñu naan la utali benn mbuus doo donetal nangam indi nii nangam. Uh-huh. man xamal ma gën a bañ. bu ma ne utal ñetti mbuus fekk sama man suma jabar benn mbuus rek nga koy defal. sama mbokk yëpp nañ ñoo joxe ngeen denc. loolu tam du yoon. su nit ñëwee hôpital. waaw duñ ko ko may waaye dañ ko koy jaay te est-ce que xam nga ah. lu si deret nu mu chéré. dañ koy jaay. maa si am lu ma leer nañ nañ nañ nañ nañ te fu ma oo ma uyu man Linguère maa toog saxel ma ne soo demee hôpital mbuusi deret yi mm. dañ koy jaay te nag balaa nga koy am sax nag. dañ lay timin santoon soo moytuwul nga ñàkk sa. péché mooy daf lay ja dañoo jaabante dangay jaabante bay bëgg a dee mooy tuin santoon xam nga liggéey tubaab la. <laughs> boo leen déggee tuin santoon mooy dañ lay jaabante loo rek danga naan def. a géwél li ma lay wax dafa sérieux. c'est très important. waaw yow Linguère yow laa jox bu baax bi de. man gëm naa la because nga yow doo toog wax loo xamante ne amul. voilà. Eh, <laughs> bu léegi wàcc. xoolal. buura ngi wàcc yow yaa ngi wàcc laa wax. xoolal bu ko dafa nekk loo xamante ne comme. bu lii laa laay def buur doon wax léegi nii déglul yaa ngi comprendre kii gémmiñu sàmba rek mën na lay wërs bu ko bu ko yee daa biti daa biti yaa lan ne dangay yàgg bi i ka i ka i ka i ka peesonoo bari buur wàcc nga de yéen yéen fa xam buur jógal buur yow tamit nag lii tamit mbaa jàmm la. ay wala daf la bëgg a distract. du ma ko waaw yow ah, en tout uh, <laughs> buur lii la la nii. sama engrais yaa la wàccee. buur lii la la nii doo <laughs> jóg. Euh, ñi nga xamante ne nii euh, ñoom ñoo nekk tamit ci wàlli lopitaan bi euh, nekk ci diwaanu laab bi mm-hmm. nañuy dimbale nit ñi mm-hmm. ñu ci bari dañuy ñëw hôpital ñu ñëpp ompale wuñ ñëpp ñoo mën a jënd mm-hmm. deret bi understand xamante ne nii suñ ñëwee soo xoolee seen situation te daf lay leer ne kii amut lii amut voilà donc nga bëgg koo jëndloo mbuusi deret yoo xamante ne nii ko waaw ñu bari buur dañuy ñëw hôpital wallahi ñàkk deret dafay tax ñu ñàkk seen seen seen. seen da nga mën a tontu de. nga ne ko amul paas. ñëw nga bu ko jëlee loolu mbuusi deret. ay mbuusi deret ma ne ko boo xamante ne de nit ko ko fa maye. waaw te nit a ko fa bàyyi. nit moo ko fa maye. anastaan boo ñëw taxaw ngeen jël deret te caaju leen dara. waaw <laughs> ah loolu ëpp na di. dara duñ ko ko caaj. fii ñu bari dañuy dem la am na ñoo xamante nii ñoom seen seen deret bi. daf dee bari always. so dañ dee mën a dem lapitaan pour dem maye deret du ko suñ ko defitee tamit nekkul seen wér-gu-yaram. daf leen a indil feebar. Ah, understand léegi nag dafay dem foofu maye deret dëgg la deret yenn saa yi mu manqué mii ñu ne saa yoo demee lapitaan da nga fay fekk deret déedéet. noonu la war a demee nag noonu la war ñuy wax mooy ñi nga xamante ne dañuy dem ci lapitaan bi seen deret nit ñëw mu leer la ni kii daf ko soxla nga jaay ko ko. ah Linguère. te yow ki ko fa bàyyi daf ko maye du dëgg du yoon. Linguère loo nekk di wax xam nga dafa nekk loo xamante dafa important. dëgg pare su fekkee ne comme nga dafa dafa nekk loo xamante ne comme nga it is actually happening. Mhm. it's supposed not to be. waaye man tamit xam nga ah, what I actually know is this comme xam nga most of the time ah, ah, comme soldaar yi dañ dee dem si lopitaan bi. xam pour ñu donate euh, euh, blood comme xam nga gars ñu suñu defee opération nii xam nga emergency ñu soxla deret dañ dee mën a dem si lab bi xam pour ñu de euh, jël deret yooyu noonu pour ñu use ko for somebody ki nga xamante ne the person needs it urgently waaye comme comme xam nga nit ñi dañ ko dee jënda loolu comme I don't actually have any uh, any idea about that waaye comme xam nga ku nekk ñu ne weddi Ah, gis bokku si waaw comme xam nga moom soo gisee mu wax loolu noonu daf ko gis and there is nothing impossible here xam nga lu nit wax rek xam nga maybe the person have his or her ñu dee def loolu noonu bàyyi leen ko xam nga jaadut xam nga du yoon definitely this is all what we have for you today as far as our health story is concerned